wa radiyallahu taala an ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi nuyuwaat ñëpp di ziyaarawaat ñëpp di ñaan suñu borom suñu nuyu bi ak suñu ziyaara bi nuyoo ak li mu ëmb lépp di jàmm ak yërmande ak barke yal na ko yàlla dotti ci réew mi dotti ko ci àddina bi yëpp yàllaa ko man yal na ko yàlla def ñu ngi nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yëpp fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla jàmm yal na ko yàlla def ci réew mi mbokk yi ñuy dellusiwaat ak yéen ci beneen émission boo xam ne tey ñu ngi ko jëmee ci li nga xam ne mooy wàllu sant yàlla mbokk yi waaye bala ñoo dem ci loolu ñu jaalewaat waa Sénégal jaalewaat waa diini ji jaalewaat waa àdduna bi nitu yàlla bu mag boobu jàngkatu alquran bu mag boobu di imam Alioune Badara Ndao ñu ngi koy ji jaale mboolem waa àdduna bi ndax yàlla la fi nekkaloon yonent bi la fi nekkaloon ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne boroom xam-xam yi ñooy ñi nga xam ne ñoo fi wuutu yonent yi al ulamaau warasatul anbiya kon moom taxawaayu yonent bi la taxawoon waaye représenté woon na it xalifa nekk xalifa yàlla ci kaw suuf ndax yàlla jël nit mu doon représentant ci kaw suuf inni jaa'ilun fi l ardi xalifatan qaalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dimaa wa naxnu nusabixu bi xamdika wa nuqaddisu laka qaala inni aalamu ma la taalamuun yi bañoon nañ sax nit représenté yàlla ci kaw suuf waaye xam gi yàlla xam nit ne nit bu tooñee mën naa jéggalu mën naa baalu mu jël nit kooku def ko mu doon représentant ci kaw suuf kon imam Badara Ndaw Alioune Badara Ndaw moomu ñu ngi koy jaale mboolem waa Sénégal di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd yàlla na ko yàlla xaare aljanna yàlla na ko yàlla àtte ci yërmandeem ju yaatu ji ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi war nañoo sant yàlla bu baax li ñu waree sante yàlla nag dafa bari lool mbokk yi war nañoo sant alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimu salihat xéewal yi ñu yàlla defal fu ñu toll war nañ koy sant ñun bu yàlla jëloon rek ñàkki def gim ñu ñàkk def bu ñu deftoon nit rek fi mu toll nii war nañoo xalaat leen waaye def gim ñu def nit rek doy na sëkk ci ñu war koo sant moom yàlla ndax am na yeneen yu fi nekk yu ñu mënoon def waaye def nañu nit kon war nañ koo sant moom yàlla waaye war nañ koo sant ci def gim ñu def ñu doon ay jullit ndax mbokk yi jullit lu neex la jullit ñoom la yàlla wax ni ëllëg ñoom ñooy ñiy tàbbi aljanna qad aflaha almuminuun yàllaa ko wax jullit yi texe nañu yàlla mu wax loolu ci alquran alladina hum fi salatihim xaashiuuna léegi nag bi mu waxee julli di ma ngay joxe seeni mandarga alladina hum anillaahi mu'ridun ba mu jeex fa tabarakallahu kon def gim ñu def julli rek war naa tax ñu santaat ko moom yàlla boole ñu nag ci xeetu sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne giiru dundam sant yàlla ci la nekke woon daana julli moom sallallahu alayhi wa sallam ba ay tànkam néewi tànk yi di néewi mu jeex takk sayyidatuna Aïcha xool ko ba mu yàgg ne ko ah yow de dafa mel ni xanaa du yow la wax ne yàlla wax ne inna fatahnaa lakka fathan mubiinan li yaxfira laka llaahu maa taqaddama min zanbik wa maa taaqara wa yutimma nicmatahu alayka wa yahdiyaka sirata mustaqima wa yansuraka allahu nasran aziza walladi anzala sakinata fi qulubi almuminina liyazdadu imanan maa imanihim wa lillahi junudu samawati wal wa kana lahu haliman hakima yàlla moo wax bi ne ko naa la sa bàkkaar yu njëkk ak sa bàkkaar yu mujj moo tax sayyidatuna Aysha ne ko lii ngay def est ce que jarate na kon julli gii ngay julli sa tànk yi néew yi nga jeex tàkk talatoo dara lan la ko sallallahu alayhi wa sallam tontu mbokk yi loolu nag moo jar a bàyyi xel afala akuna abdan shakura dégg lim ko tontu moom sallallahu alayhi wa sallam afala akuna abdan shakura xanaa dama warul nekk jaam buy sant yàlla li ma yàlla defal ci teraanga ma doon nit yàlla yónni ma ci samay nawley nit gënal ma ci ñëpp man sallallahu alayhi wa sallam kon li ma war mooy ma reconnaissant mooy ma delloo yàlla njukkal ci sant ko moom suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax noonu la ko doon sante daan julli julli yoo xam ne nii guddeeg bëccëg subaa ngoon daan woor guddeeg bëccëg subaa ngoon durant 63 ans yu mu dund sallallahu alayhi wa sallam noonu la nekkee woon yàlla it waxaat ci alquran ne xéewal yi ma leen defal su ngeen yégee defal naa leen xéewal na ngeen ma sant su ma leen defalee su leneen lu dul xeewal sax li ngeen jàppee xéewal yéen ñëwee ci yéen sant leen ma xéewal gi mooy lan booy jàng wa duhaa wa layli isa sajja maa waddaaka rabbuka maa qala walal axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman fa awa wajadaka dallan fa hada wajadaka ailan fa agna fa amma al yatima fala taqhar wa amma saila fala tanhar mu ne ko nag wa amma bi nicmati rabbika fa haddis mooy xéewal yi ma la defal yow sallallahu alayhi wa sallam teraanga yi ma la defal foo tollu dee ko waxtaanee kon sant te suñu borom na nag sant li muy jural nit mooy ndollant la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid kon kay nañu sant sant goo xam ne yàlla nee na la in shakartum ci condition wu ci chartu ngeen sant ma man yàlla ah la azidannakum ci laa leen di dolli ay xéewal ak i teraanga waaye wala in kafartum su fekkee nag da ngeen a xalab ma defe leen teraanga teraanga ji ñun liñ jàppee teraanga mooy am xaalis mooy am leneen waaye ñun teraanga jàppe wuñ ko mu doon wér wér teraanga la wiir war nañ cee sant yàlla xëy wàcc sëpp sa tànk mën a doxi say soxla dem dikk mbokk yi loolu war nañ cee sant yàlla tabaarakallaaw bëgg lek lekk bëgg naan naan te am na koo xam ne yàlla xañ na ko loolu war ngaa sant yàlla waaye ñun liñ luñ jàppee ne loolu la ñu war a sant yàlla mooy ku ci amul xaalis rek jàpp nga ne daal yàlla dafa fàtte say mbir kon nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nekko ko li ma la defal ci ay xéewal foo toll dee ko sant dee ma sant moo tax ñeenti xeeti sant yi nga xam ne boo ne alhamdulilahi rek ñeenti sant yëpp ëmb na ko mooy cant gi nga xam ne nit ki da koy sant yàlla loolan ndollante la koy jural ak cant gi nga xam ne yàlla moo koy sant nit ki ak cant gi nga xam ne nit ki moo koy sant moromu nitam tabaarakallaahu ak cant gi nga xam ne yàlla moom ci boppam moom mooy sant boppam moom yàlla kon ñeenti xeeti cant yooyu boo ne alhamdulilah rek ñeenti yooyu yëpp dugg nañu tabaarakallaahu moo tax lii ñu dëgmal nag tabaarakallaahu di eh, ma ma ma génn parce que lépp ci cadre sant la mooy màggal gii ñu dëgmal nga xam ne bàyyi ba suy rek baara cheikhul qadim radiallahu taala anhu nga xam ne màggal gi ak cant la parce que daf ne képp koo xam ne sama mbég mooy sa mbég ñëwal nga santale ma yàlla te nag li gën jafe moom la Serigne Touba def xam nga nit ñi dañuy dugg ci programme ba jeexal programme bi am ci gain de cause maanaam am ci xéwal doog wax alhamdulilah Serigne Touba nag màggal gi defu ko bi mu demee ba ñëw du loolu lay màggal mais ba muy dem natt yi ko yàlla teg natt yooyu lay sante yàlla xam nga loolu lu jafe la natt yoo xam ne génn goo ci bi mu demee ba ñëw mu ne du ma sant ñëw gi ma ñëw te mucc waaye damay sant yàlla ci génn gi ma génn ak natt yi ma yàlla teg Dakar bi mu fa jaaree ndaysaan gis nga bi muy xasidaam boobunte ndaysaan yaa ngi dégg mu naan ayasmin ni laahu inda jiyawali iblisa isnaadaytahu bi li nafaali xayrillaahu qablu fi ndari bi ahli badril usuudil kadari nafaali xayrillaahu fi ndakaaru eh, kulla azan lii jarrahu makaaru allamani rahmaanu fi safina bi annani qadimu zil madina ndaysaan muy wax naan fiñ ko jaarale ci barab yooyu ba xasida bi continuer waaye yooyu yëpp mu doon ay barab yoo xam ne barab yu métti la noon bi teg ko fa lu métti waaye Serigne Touba bi mu ñëwee daf ne daal day sant yàlla ngir natt yooyu yàlla teg ko moo tax samedi xarajtu yawma sabti samina achar li xidmatil muxtaari fi chahri safar kon ci weer woowu lañ toll safar googu ñu toll tey loola nag yàllaa ngi ko ko tegoon ci le 18 du mois de safar moo tax ñuy wax 18 safar le 18 du mois de safar weer wii ñu nekk ci dix-huitième jour bi ci la ko yàlla tegoon natt yi natt yoo xam ne ni nag Serigne Touba am na ay maqaama ak i darajaat yu mu bëggoon te loolee kat yàlla ne ko dama koy jaay jaarale ko ci yonent bi mu nangu tegoo coono yooya ngir rek tabaarkalaaw sigil l'islam waaye ngir sigilit der bu ñuul Serigne Touba moom it bi mu demee ba nga xam ne dem na ba ñëw ne kaa ma yàlla ci xéwal gi nga xam ne indaale naa ko koo xam ne sama mbég mooy sa mbég rayal ginaar ba gileem bul bul xeeb waaye bul yéem lu mu rëy rëy bul ko yéem bi mu ñëwee mu ne ijal rujuci ila qawmi saadatana wal takfina yawma jamci lxalq niiraana Sëriñ Tuubaa nee na dikk gi ma dikk ñëw naa nag ci sama nit dellu si naa waaye na ngeen xam ne ñëw gi ma ñëw dama ñëw ngir yégal leen ne leen maa ngi ñaan naa yàlla te nangu na ko sama wu nit yàlla fegal leen safara yàlla musal leen ci safara kon Serigne Touba moomunte ñëw gi mu ñëw tey màggal gi ñu mël dafa woote ngir sant yàlla parce que xam na sant yàlla li ci li ci nekk moo tax dafa am ñaari waay yu ma sa ñëw ci moom kenn ki ñëw ne ko Serigne bi man de tabaarakallaahu damaa nekk ci ay xat-xat nekk ci ay coono fen yi yëpp kër ga cin takku fa lu ne ñu jàmbat ko xam nga rek lii nit di jàmbat ak i façon léegi nag mu ne ko toogal toogal ñu toogaat ba mu yàgg am keneen ku ñëw ne ko sëriñ bi man de wax dëgg yàlla euh, mu ne ko ci loo nekk mu ne ko man de maa ngi sant bu baax maa ngi sant yàlla donte jafe-jafe waaye daal maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ Touba ne ko toogal am ku ñuy ñëw di indi léeg-léeg hadiya yi ku ñëw rek joxe muy jox kii sant te kookoo mujj ñëw ndax am na ki njëkk ñëw jàmbat ko ay coono yi àdduna waaye kii sant moom rek lay jox lu ñëw rek mu jox ko waa ji gis bopp ne ko sëriñ bi ah man de ñëw naa bu yàgg te wax naa la coono yi may dund ti Touba ne ko man kii sant rek laa xam ndax yàlla moo ma digal ne kii sant nañ ko dolli kon nag comme kii bi mu ñëwee def ne moom mi ngi sant yàlla bu baax yow nag tant de problème nga ma énumérer di lim maa ngi nii kër ga dépense amu fa cin takku fa dañuy dëpp cin lu ne nga wax ko waaye kii moom li mu métti métti mi ngi sant yàlla moo tax lu ñëw rek ma daal di yëkkati jox ko moo tax mbokk yi foog ñu am esprit wu lu mën ñëw. ci kaw suuf ñu sant yàlla ak bu métti ak bu neexee ñu bañ xaar rek mbir mi neex parce que da ngay toog àdduna période bii day gën a métti waaye lu métti métti coono boo mën daj ci sa àdduna ak lu mu métti moo xam sa biir famille la moo xam ci société bi la moo xam ci eh, kaso ba lañ lay yóbbu moo xam ci lu mënti doon mbokk yi na fexe bay sant yàlla tey muñ te delloo yàlla njukkal nga xam ne bind gim la bind ak bàyyi gim la fi bàyyi yow defaloo ko lu tax mu bàyyi la fi nekk am na ñu tëdd ci armée yoo fi am na ñu tëdd yarax am na ñu tëdd feneen su la fi yàlla bàyyee coono boo war a mun am nag war ngaa delloo yàlla njukkal ne ko yàlla malgré coono yi yëpp maa ngi koy dund waaye maa ngi lay sant yow suñu borom kon nag mbokk loolu daf doon loo xam ne nii lu jar bay xel la sant yàlla ak dolleente lay jural nit a sukru sukru bi sant gi. ci bu méttee cant gi bu neexee ndax yàlla moom dañuy dañuy nattu de yàlla dañuy nattu ay Cheikh El Hadj Malick la ma waxoon rek mooy ci solution bi waradini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yàllaaw yàlla loo tegal ci man rek nag ma dimbale ma nekk kuy sant ndogal boobu nga dogal ci man mag ñi tamit ñoom ñëpp tey kenn ku ci ne jaaroon nga ci coono yooyu tey Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul mooy ku xewle rek waaye mag ñi ñoom ñëpp kenn ku ci ne am na bés nattu boo xam ne dal na la daanañ toog buñ doon toog sax gisuñu natt seen kaw dañ doon wax ne yàlla da leen fàtte moo tax bu leen dar daan dalee dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mi ngi may bàyyi xel mbokk yi kon nañ leen bay bàyyiwaat kel sant yàlla coono bum ñu tax a coono bum ñu tax ñu wéer keneen mbir mi kuddul yàlla yàlla moo ñu fi indi yàlla moo ñuy teg lu ko neex yàlla neen dinaa leen nattu yonent bi nee na woon ku la gën a métti nattu ci kaw suuf mooy ki nga xam ne moo la ëpp cër ci yàlla kon nag tabaarakallaahu gis ngeen tey e, damay joxe rek exemple mbokk yi xam naa bu kenn xalaat dara waaye gis ngeen imam Alioune Ndao Alioune Badara ndaw daj na ay coono ci dundam âge bi donte 1960 la ñuy def ne moom la judd ba mille deux mille vingt deux booy seet ñaata at la daanaka euh, yaakaar naa 62 ans la 62 ans mais boo ko doon xool coonoy àdduna ak coonoy njàngale ak tabaarakallaahu yu demee ni noonu dem na bay ba nga jàpp ne boo xoolee sax da ngay jàpp ne am na 80 ans waaye loolu lépp mi ngi doon sant yàlla fu mu toll day wane mbégteem ak kontaanteem ci bokk gi mu bokk ci diine lislaam waaye day wane mbégteem ci di sant yàlla fu mu toll kon nag nañ leen bokk di sant yàlla mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin lii ku ko dégg foo toll na ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilah bu mu dañ ci suñu làmmiñ yi bu mu dañ ci suñu làmmiñ yi fu ñu toll mu métti mu neex nañ leen di wax alhamdulilah alhamdulilah ala kulli xaal ci xaal bu mënta ñëw métti na neex na santal yàlla alhamdulillahi lazi bi ni'matihi tatimu salihat xéewal bu la yàlla defal ci kaw suuf na nga ko sant moom yàlla te boo defee dara ba noppi tàmbali dara ba jeexal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na looy tàmbali na nga wax bismillah mais bu jeexee nag nanga nga alhamdulillah moo xam am nga résultat bu positif moo xam amoo résultat bu positif mais boo yëgee ne jeex na rek santal yàlla ci jeex mu jeex kon nag mbokk yi nañ leen bokk nun ñëpp santati yàlla di wax yàlla ñu ngi lay sant bu baax ci xéewal gi ñu defal ci teraanga gi ñu defal def ñu ñu doon ay nit di ñuy tawal di ñuy saxalal di gàncax gi génn nga ñuy nga nga ñuy may wér tabaarakallaahu loolu lépp jar nañu sant ko yàlla kon nag alhamdulilah ñu ngi santaat waa site bi bu baax Amsa TV tabaarakallaahu eh, di sant le technicien le grand technicien Serigne Samba fa tabarakallahu le plus grand technicien des techniciens damay dégg benn waaye naan xaw ma fii lay mburu mi xoyam xoyamee waaye maa ngi leen di xamal ne daal Amsa TV gi fii lay mburu mi di xoyam xoyamee ñu ngi sant nag tabarakallahu sunu xarit sunu soppi Serigne Moustapha Dieye sëtu alxaji Rawxaan Ngom bu baax boobunte yal na yàlla sàmm ko taar ko te yokk ko te defal ko ijaaba ci lépp lu muy ñaanal nit tabarakallahu ñun yëg nañ ni gëm nañ ne lépp lu mu ñaan yàlla dina ko nangu ku ragal yàlla la ku dëggu la ku sincère la nit la koo xam ne nii ku bëgg ñëpp tedd ci seen dund la nit la koo xam ne ku bëgg ñëpp wér ci seen dund la kon Serigne Moustapha moomu ñu ngi yeesalaat sunu cofeel ak sunu kóllëre ak sunu ziyaara jëme ko ci moom tabarakallahu di wax rek rabbana atina fi dunya hasanatan